nu ñu organiser wu te nañu bàyyi xel suñu bopp waaw xam naa mbokkuma ndeysaan ñu ngi seet fu ne di ko jaar pour nuñ ko bloqué mais xamuñu ni man mën naa ko yóbbaale Sonko man mën naa ko yóbbaale waaw jeex na waaw tas parteeg yii yëpp ñun ñoo ca jiitu woon tasuñu woon toog fii nii dañoo tas Moustarchidine hmm? ba góor gu am fayda ga góor gi Mama Jaw ngeen bal ma baat bi mu wax ka waxoon ni tas na Moustarchidine mu ne ko tas sa sëyu ndey moo gën a yomb waaw waaw góor gi maam ma jow mag mu amoon fayda la waalo waalo la nag waaw parce que waalo waalo yi moom dañu dëgër fiit lool waaw xam naa ci dara xam <laughs> naa am na may xool di ree waaw waaye noonu la dafay am loo xam ne fayda rek a koy mottali waaw li may wax tooñu maa tey baalu maa rek mooy tax borom baale ko et puis c'est tout bu ko defee kon nag suba dinañ yeggale cours bi ci diggante alam toro ak araayit li ci nekk yépp ci pédagogie ak sages yi mu àndal ak li yàlla di attirer attention nit ñi lan la waaw eh, mu mel ni nag du ñu bëggoon ñëw rek barkeelu ay baat rek parce que waxtaan yi du jeex te nit ñi dañuy sonn li ma doon wax ci suba rek bi ñu defee accueil bi ma ne am na ñoo xam ne seen gàmmu jeex na waaw bu ñu sañoon sax fi mu ne jël seen oto dem ñibbi waaw ndax dafa am loo xam ne ku mu doyul leneen dootu la doy waaw waaw ma defee kon nag ñu bàyyi xel ñu ñuy neexal di leen wut lu ñu leen di kiiyee moo tax ñu toog ba biig ci guddi ñu ñu téléphoné ma vingt trois naan ma waaw euh, lu premier ministre yónnee na fi ñaari nag ak ñaari gëléem ñun lu ñuy doyee ñaari dama leen di laaj mbooloo mu toll ni ñaari nag ak ñaari gëléem lu ñu yónnee feneen duñ ko wax ah liñ ñu waxoon yëpp yépp dara defuñu ko kon nag ngeen jàpp loolu xam ni ci xeex ak ñun la jëm mais ñu it pare nañu waaw waaw bu ko defee kon nag bala ñuy yegg foofu dinaa wax ak sama maam ba ca Touba parce que moom rek laa fi am comme allié waaw. moom rek laa fi am comme allié tellement sincère tellement ouvert moo tax lu may wax ak moom mën naa ko wax mais à part foofu nag Covid 19 waxuma ci dara waaw waaw Covid 19 jeex na bu yàgg waay du dëgg ah waay. boo defee code nag il y a trop de comédie il y comédie yàlla xam na ko ñu bàyyi xel sunu bopp rekk wàllu candidature bi dinañ ci waxtaan suba ma wax leen li ma gëm ak lu tax ma def choix waaw bu ko defee nag toog day daal di jeex ñépp takku liir yi sax nañ leen wutal couche waaw te kenn ku nekk ñu wax la naka ngay dompe wolof moo wax ni eh, domp sax ci ci ci sot la bokk waaw waaw loolu waxin la waaw bu ko defee kon rek mu ngeen seetloo depuis premier jour ba bi ñuy yegg si presque Serigne Cheikh Tidiane ñaari yoon lañ ko fi wane ñaari yoon waa këram dara ku ne tudd nañ la fel yeeg teeñ yeeg ñëpp waaw